sëriñ la sëriñ si weeru leen tëye sëriñ Sadio Ndiaye Tour weeru leen tëye ñoo ngi seere yëpp di soxna Bali mu tax bii pour sooy bu Xaadimu Rasuul waaye soxna Bali moom Cheikh Mouhamadou mu tax day teew ci yoon di jàmbaar wuutu jàmbaar ba doon lépp di jàmbaar muy Serigne Saliou nii moom Serigne de Cheikh Béthio Thioune di nuyu wala biir bi di su ma tuddee sa Serigne bopp rek muy Serigne Abdou Aziz Fall moom moom Serigne Saliou Touré mu ànd ak sëñ Mame Cheikh Anta Babou ak Serigne Fall Cheikh Serigne Lamine Cheikh ak Serigne Abdou Salam Serigne bu la woowu téléphone yónnee wu ci yow gisoo bu dee màggal bu def màggal bi ngay yeewe tubaab ko considéré pas une personne à similarité yi mais waxaat jëfandikoo ko loo xam ne bu ma nee ko yàq jëfandikoo ko ba liggéey ba ñu ko soxla naa ñoom kër ga dañoo dooraan ba muy dooraan maanaam seen bi ñu yëpp ñaar la ko seen benn la doxal moom muy am naa lu doxal te loolu présidence yi dana ko fekk nee na sëriñ bi ko lool jàpp ko lool kii ko lool matériel sara bi ñun ànd nañ leen moom bi ñaara waaye nag yitte sëriñ bi ak wàllu bu sëriñ bi faral moo tax gisoo ko waaye xam na leen ci yow sëriñ boo kon na ñu yàlla ñaanal ne ci doole sëriñ bi yàlla yokku la yàlla doole la kàttan doole sa sutura yéen taalibe yi am ci yow yàlla na ci xam lu koy seen di gën a ci ñoom yàlla na leen ko yi jëlee si ne aamu fii xikmat yi waxu ëpp maanaam bi ñu jullee tawee ci liggéey la la nee naa man ma ma gàllankoor Serigne bàyyi wala ci FPL ko soxla waaye bu dee boo soxla maanaam bàyyi bi liggéey bi bàyyi liggéey bi loolu nag léegi sabab bi li si ne mel ne woon muy bu li ma xam mooy si baax yee bu ñu naan jëlee fexeel Télémarathon du déplacé Télémarathon du daaya Télémarathon yëngu liggéey yëngu la. Serigne Touba nag ay liggéey bu ñu yemoon Serigne Touba rek ñu ko am ñoom ñu ngi ko def il nga ko bi ngeen na boo ko bëggee xam fii ba bisim biir doo ko xam dafa ne lee ñu xanaa ne côté yi nii sëriñ bi dafa doon ci côté yi ñu ko ñu def mooy ba instant bi grand bascule rang bii nekk rang bii jërum ci seen météo mat na deux kilomètres te yàqul dara ci seen côté bi te kenn ku nekk am na mat bi ko ko mu daan na ma waaye waaye yi noo noo gisee ma ne ko yow tur ñu ko lekk sama base bëri bi mat nañ kaat samedi vingt trois heures la ko doo ko laaj ci kaw naa yow ko ñu taxaw mu taxaw naa ngeen naa mi ngi sant bu ma bi bu baax di ko gërëm ndax ndaw la lu ma ndaw nee na lu bëgg yàlla ñaar si ñaan yàlla ñaar si yàlla ñaar si mu ngi mu ngi gërëm jërëjëf ci Serigne Saliou jërëjëf ci Serigne Saliou loolu la ñu war a def jërëjëfati Serigne Sall jërëjëfati Serigne Sall Serigne Sall di leen tudd maa ngi leen nuyu bu baax sa rajo bi di leen ziar loolu nga xam ne yaa ngi ci biir jotaay maa ngi nuyu ñaari muy ñu mbooloo mi teew sëñ bi muy soxna Ngozi Diouf ak soxna Aïcha Kane maa ngi nuyu kilifa yi sama ginnaaw yëpp kenn ku nekk. set boo ko jaaree ñaari yoon mu tasaare jënd amul kenn ku ci biir bii bii foor te am na nit ñoo xam ne suñu set ba xëy na benn nit ñi boo ko jaaree jënd ñoom ñaari yoon bari fu seen xel jaar fuuf doo ko doyee dara fu seen xel jaar ak seen saal yi wala si fii du saa koy mukk dafa leer jataay bi jataayu leer soxna Aïcha nag bis bi saa bu ñëwee war nañ ko fa sargal ndax su sunu borom moo ko wan si mbir bi jaarale ci ba ba mu defee istixaar si soxna Aïcha ñu yëngu ko si sëñ bi day toog day borom ñu may ak borom ñu may sëñ bi benn nit bu mu sëñ bi ci nit ndax ba tënku ñu moo tax ñu ngi ko ñaar fukki leen moom nga ne yaa yàlla la yee moom sunu maam Cheikh Ibrahima Fall bu ñu ñëwee ci sëñ Fall ñu ci sunu tasiri bu baax wala ko ko ñaanal dara wala yàlla la ñu seet beneen mbir mi la yàlla mos a jóg fekk ko xam ne ñoo xam ne ko boppam muy Cheikh bi danaa wax ne mu ko ñëw mu ko nee ma langaloo ci saret waaye wax na ne dugg ci biir xam naa ne sëriñ boobu la ma jël si boppam te sëriñ boobu ay yàlla maam Cheikh yàlla la doon seet ci sëriñ boobu Cheikh bee yàlla ko woon boppam teel a jàng diine la ba xam nga ko nee ko fi ñëpp ci li gërëm yàlla ne ko ne raas ko jox ko seen xel mu ko toog Serigne Touba ay jot a góor ñu jaarale ñu naan waa Jokalante fan la ñu woo ñu tënk ak càmpaam ci ñett dana ne cër yi ni mu ciy sant yàlla mooy beneen bu ci ca tegu mat la yàlla xol bi may ñi ko yàlla may dañu suñu nekk ak xolam ak dara bu ci dugub yàlla bi ko ñetteel muy amee bi tàgg bi ëpp dugub yàlla ak moom. te mu nekk jàmbaar laa jëfkat la waaye est-ce que mas ma toog ci bâche yi ko wax kenn musu koo waxtaane te gisuma tànn bu bu ëpp loo tabaxal ay daara sama sëriñ Cheikh de daara yu mu tabax ba mu ne booy mu fa caabi jébbal ko sëriñ bi waxoon na ko ginnaaw kenn ëpp ko jëf ca loolu loolu moom képp di beeco di fonctionnaire ci tumurante boppam ak njabootam yii jox Serigne Saliou moo ñu ngi jëlee carte ak ñëw ci seen solde di jox seen Serigne seen beeco ak solde la daan jox Serigne bi seen beeco dotation essence la daan jox Serigne bi ba koy man moom képp ab liste la ko Serigne bi daan yónnee léeg-léeg mu jaar ci lu mel ne Moussa Diaw ñu ñëw ci moom bàyyi yow lan la ko yàlla doon def leer bu ñu ñëwee gis na rek yow sëriñ bi ñoo xam ne ñu bëgg lépp sëriñ bi lay tudd bi gis ci moom képp moom soxla ci soxnaam yu teel yi de seere nañ ne ba mu ñu ñu ñu sëriñ Saliou ñoom yi képp ñu moom laa daloo waaye boobu ku ñuy wax daal bu ñu ñu fuji daal bu ñu ko tëj ci daal bi ñu ko soxla mu ma war a ànd ak ñoom la soxla nag ba mu war a ànd ak ñoom la war a yàlla lan moo war a mën a àndee ak ñoom mooy fexe ba njëriñu ci yàlla ji moo tax jullit bu baax yi ñu mag yii nga xam ne ñoo fi teew ku mel ni Sëriñ Mbacké Ndiaye keroog bi mu àndandoo ci keroog Sëriñ Saliou Souk sëriñ bi ne fu waay jébbaloo fii la Sëriñ Saliou ndax daa am tudd tudd ko turam tudd santam tudd ko sëriñam tudd tawatam ne Sëriñ Saliou rek la yaakaar mun a sëñ bi dañu dugal mu jóg ndax ba ngeen booloo nii fu waa ji jiw bi fii dem maay nutu maay fay ñu ko fekkee deewul nii sëñ bi dañu ne ko kon nag xamee naa ci leer bi ndax man de boobaa léegi damaa bëggoon a xam yaay kat sëñ bi daan na dem sax ci ci lu mag ñu koy xam-xam di leen laaj doo gis lu ñu doo gis lu ñu wax sëñ bi daal lu ngeen tax ñu ngi ko ñëpp ñëpp yem ci kenn xamu ko kenn tànn ko ci kenn mosu si ci dimbali moom la yàlla may xam-xamu xam Serigne Saliou moo lay fekk quoi moo ko njëkk a wax te Serigne Thierno Diouf Babaye kii la la de du ko ne de moo ko ñeme naa ko ci moo ndax boo ko déggee dégg da ngay fayal rajo bi ñuy wax doxal sëriñ Abdoulaye ñu ne fi ne naa ñu ngi wéy sëriñ Abdoulaye ba ma koy waxaat dana ne ko dee eh, loolu de ba ma koy wax dana la gis ci si guddi bi ñu dee rek ñu ko laaj ah, xalaat sëriñ Saliou mooy sëriñ loolu moo ñu fekk a ñëwuñu fii di def am màggalu baaxandal di di fàttali kenn lii ak cant la boo xam ne. fii ci suuf sant Serigne Saliou mu dul dugg ca kaw mu ngi sant yàlla Serigne Saliou moo ko ne loo ma sa sant yàlla mu noonu te cant gi ma am ñaari tur sant Serigne Saliou mu bu mu demee ba mënatul wax li mu doon ci ñun booy ko doon waay Serigne Saliou mooy Serigne Touba fii ci canal Serigne Saliou dangay séddale ko danaa wax ne sant bu dul Serigne Saliou moo sant tuuti bi ñu ñëwee marché mu siiw nit ñi ci waaye Serigne Saliou kenn bañ a war a tànn ndax mooy Serigne Touba moom it ci Serigne Béthio rek war na leen mooy Serigne Touba war na leen am na fu ñu jaar ak moom ci xam-xam ci alxuraan ci lislaam mën naa ko dugg ko leen sëñ Saaliw Touré moom la jëkk a defar ci nit ku ko mën a defarale ci wàllu jigéen ba soxlaa lu di jëgaat yi jàngalekat wala dara waaye sëñ Béthio benn science moo xamante ne moom muy sëñ Saaliw benn religion moo xamante ne moom muy sant sëñ Saaliw benn xam-xam moo xamante ne moom muy sant sëñ Saaliw te boobaa léegi waxoon ko ci Serigne Saliou mu bokkoo ñu laaj bi ci biir wala bokkoo xam-xam barke ci Serigne Touba bi ñu wax ci Serigne Saliou mu Serigne Touba yi loolu Serigne Touba bi ci dëkk boo ko Serigne Abdoulaye mooy xalifa général des Mourides boo ko Serigne Mouhamadou Moustapha mooy xalifa général des Baye Fall Serigne Saliou ne ko xaw ko ñëwee yow Serigne Touba la wax Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall la wax ndax fa Cheikh Ibrahima Fall doon wane kooku rek la wane moom boo uul ak ku jàngi ci jàngi ci kenn ndax li ñu doon wane loolaa fi dajale woon ñii Serigne Beco moo jël ay mayam jël ay xéewalam jël ay jëfam jël léppam dugal ko ci biir ngoor gi te mooy cant ni muy sax Serigne dëgg la danaa ko ci seere tuuti ndax bu njëkk kenn na ne naa waaye wax waxam ne ñett bi leen te ci kilifa ko jóg

sa la ñu wër Sëriñ Tuubaa loola mission Serigne Ndiaye Thiaw Asra ci bëggu dugg ci woon képp koo xam ne sunu borom boole na ak Serigne Ndiaye Thiaw nga daan amee ci ñeneen yi dund leneen di dund loolu sa mënul bëgg te loolu mooy dëkk waaye yoonu Baye Fall Cheikh Moussa Fall loolu moo ko organisé moo taxoon ba ñu ko doon wax naan ko express ba dem na dana saa mbir yu fi ne ku ci dugg di nga dem boo àggee ko ci yére moo organisé woon ak fii loo aussi sëriñ Béthio nag tàllu woon organisé dara moo tax nii mu demee nii mu war a ñàkk dañu yow ñaar war a organisé la yow wax nga sabal ko organisé ak bu dara xewoon ku nekk laa gudd waaye loolu sa mission la pérennité te xam nga ko bu baax ndax fii nga ko xam nañu ki nga àndal sëriñ Moustapha moom sëriñ Saliou bu sëriñ tey moom bi gën sëriñ bi danaa bu ay boobu xam ne ñu sëñ ci émission sëriñ bee ko sëriñ Saliou ànd ak sëriñ Saliou kii boo wax ne mooy way juróom muutu ko muy Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ bee ko ma faatu woon borom ku nekkaan yi solo leeru sëriñ Saliou bi ku muut yoon la wutal sëriñ Saliou benn waa képp ku nekk ñu xam ne dëgg moom taxawal yaa tax ñu xam ne ñëwul boor laa mu kay télé yi nga bëgg di ko fi dëgg ci waaye yaa ngi dëgg yow li njëkk a woo sant la loo xam ne fekkoon na dañ naan dugub yi dugub sëriñ bi moo ko jox sëriñ bi sëriñ bi moo ko jox sëriñ bi est-ce que boo ko mën a ko jox dugub na ko rek yow la yow la nguuru Sëriñ Tuubaa mos a jëfee sa réew rek mosoo sonn nguuru moo tax mu mu suuf ak ay xeetu comme yëpp nguuru Sëriñ Tuubaa dafa sa nguuru mos a jëf bu la ko xamante ne bu dee mos a wut di nga ne yow ko ne wàññi waaye dana yëg te ñu ñu nag ëllëg yu bëgg fan la ka dem mu suuf rek daa yëg xeetu ci sa réew xam ni yàlla waa bu fi وكانوا مومي كلام الدكتور اللي بيتكلم على الدكتور في ليلة القدر يعني كم في الزمان إذا في سعدي بيجي البلد مهم ما حمل بل كل واحد نكوتي ما من دابا بابا خايف ولا شيخ نتبين كوتي بيجي ولا نتبين كوتي بيجي nee na may màgg sëriñ bi nga toll nii ma mooy ñooñu nga xam ne dañu leen di fay màgg ñu yërëm nit ñi moo taxoon Serigne Cheikh ba ñu demee ca daal di séddale ñu ñëw ca ko huit mi ngi ñuy defar ak ndax dafa ànd si ba ko def ay ragal mu ne ay yaakaar ñu mën ko daal laata na sa sax fa mën nañu sa ñu faal maa bu mën a sax mu wax ko mu xaar yi ngi leen may waxal ci lu baax ci jëfe yi ci lu bu leen faal sa sax ba yi moom moo ko defal moom moom dañuy gunge alal ba ci joxe toujours bu joxe dañu ne ah sëriñ Ba yow ma dafa am de moom nag moo xam ne foofu war a ko waaye moom dañu ko sëriñ Saliou te kat mu ko woon sëriñ Saliou mu ngi si ci solo te ko de te yéen ko ëpp bu te at mi si sëriñ Saliou dugg yi ci Saliou ci tëbës bi mu ko moom ko sëriñ bu solo nee na mu moom képp lu ko bëgg a sëriñ mu solo ko mu tëbësee ko mu gën mu lekk ko bàyyee ko daara yi nga xam ne ku ñoom nga ne ko léegi ko léegi kan moo mën a at boo xoolee ko ko sëriñ Cheikh kan moo attan di doon ay bagage yi tali yu mën naa defee ku yeewu loo ëllëg am na bu wax ñu si ko jógee lu leen di àggale dafa ñu diisee mu boole lépp ba sëriñ bay joxe mu ngi ne la moom daa amoon ci bëgg yéene lool te yéene ko dama bëgg àggale ko baal sànnale ko waaye yàlla du ci àdduna moo ko wax bi yéen yàlla du ci àdduna booba la am ca cat jëf rek te yow loo war a gën lii nga taxaw waxu mbooloo nii ku laaj sax ni ko tëdd ak sëriñ bu ma naan woowoon dëkk bi ma booleeg maanaam liggéey sëriñ Tuubaa bu amoon na jamono bi nii ak taal ba jëlee na mënul nit ñi fàbbi nañu mbéy te sëriñ bi waxoon nañu ma quatre-vingt-dix-sept ne leen lii ma leen wax di leen ko jàngal ci suuf seet di ko wax di leen ko dégg damaa ngi leen di nàmbal ci yeneen boo xam ne dafa ngeen ko ay kese leen di leen di ngeen wax bokk taal ba jënd

nangoo liggéeyal Serigne Touba boo àndee moom ngeen am ngërëmu Serigne Touba ñëpp di Serigne Mountakha ne la waxaat ci nag loolu kan moo ko dégg ci kaw suuf si kan moo ko dégg Serigne Mountakha ne la yow waxaat ci la ma ci des ku fi ne amee naa la bokk rek ay la yow képp ku la ne amee naa la bokk fi ne am lu mu la jox avance sa ëndi leen ko te bokk bi dafay bu ñëwul de dana ñëw de dana laa yebal ca xamante ne ja nga xam ne lépp fa lay def lépp fa lay gis sëriñ bi Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké gerte la la parce que sëriñ bu baax sëriñ Sall moo ko doon te jamono bu sëkk li mu leen ko leen woon dóoru te mooy xool yi ci moom mu noppi noppee bu tedd yi Amady Talla Mbengue ñii moom Amady Talla Mbengue moo toll foo xam ne ku ko mos a war a toll ci jamono dina la sax ci sax ba ñu xam ne yaa ngi fi Serigne Cheikh daa daa dugg ci biir mbirum Serigne Moustapha ba nga xam ne doo sax xam ne ñu ngi ci kër te kenn tolluñu ko moo tax ku ñu ko wala ñëw na ñëw ñu ko moom ñu jéem a wët jéem a wut ay ay ay ay ñuy jaxal dem ci moom tëralee bi mu dégg ngeen li sëriñ Jóob di wax fii balaa fi kenn la wax ku mu ànd ak sëriñ Jóob ñu ngi ci yow laa ngi dee ko ñaan ñëpp wóor na ñëpp ku ñëwul laa rek bii de ñu war yaa ngi sëriñ jataay bii nga toog da nga koo mën gis rek bu ñu ko toog léegi kenn amul kenn jóoñu dara kenn fiitu kenn mënu te kat bu xaalis bu gis dëgg professeur bu gis dëgg ndax gis dëgg professeur la daan dëgg sëñ bi ku ko gis dëgg saa la daan dëgg sëñ bi ko ak tàlloo la dëgg sëñ bi ko ak cant la daan dëgg bu ñu ko les gens sont plus heureux parce que beneen baat ñuy jëfandikoo wu ñu stress moo leen di bëgg a rek ab sabtaatoon warul stressé bu stressé bu dee dëgg la ab sabtaatoon du jaax du jaax du ji du rafet du gënal gënal moo tax képp ku bëgg seen bëgg soo leen bëgg ci xam ne ko képp ku bëgg a defar dana la def mënoo nga jur keneen suñ ko faral ndax sëñ bi yow dañuy am di waxtaan ak moom ba ci am na biir boo ko am ci xam-xam bu ma doon laajee ma lay jege lii ñu wax moo la ko jàngal baat par baat amul guddi amul bëccëg amul wax bu toog la moom amul fu ñu ko yàgg léegi na ne ma moom conseil dama dama mis bi wut ndox def ci paan suukar def ci dugub ñu bokk Serigne Sall wax ko tamit mu ne nii ko war a naan di ci sotti ci imaan ñu naan Serigne Sall ñu jox ko ñaar mu ne nii ko nekk moom képp dara yàlla na lépp ñoo xool ci imaan ñu naan mu yëpp ay ko di jox di ñàkk ci ay mosuwaat di fomm ko ci saa ñuy lekk ñuy ànd moom ci Serigne Sall di xool ni mu defee ak moom mu koy wax ay dara yu bokk bi mu ànd ak wéer bi mu ànd ak mu dugg dëgg ndax jaay yi yëgee suuf si moom. maa ngi ñaan bépp mu nit ne bu yaakaar seen Tuubaa mu ngi lépp la ñu ñaan te ren que ñu ne ñu naan ren ñu gis ne lan ñu ñu ngi jënd seen saa yu wóor la bëgg na na bëgg mu ngi ñëpp ñaan te ne na ci ñëpp ñaan soxna yi ñu toll yàlla dama doon ay ñu mel Secretário de Direito, mas nem dinheiro para ter que ter um nem me nem não é para participar. E aí eu lhe para lá para mooy li li li li sëriñ ele jox jàngale ci baaxul ci la ñu yëpp dafa bokk quebra tudo, ele é ser humano vivo. Sempre tem. Senegal vive. Morreu na completa. Música banana. Mais dara di sëriñ Saliou Mbacké fu fu wax ji gën a ñaawe fu wax ji gën a juróom lu ne fu ne que dëggal a day a ndax commissaire yi moom ay te njëggal bu sincère boobu sëriñ wallahi wallahi wallahi dama ci milité bis bu set comment on peut être aussi large sëñ bi é am ñu ko toogee ci biir ak ci des mais ñëpp ñu jiite te njëkk boobu njëkk bu wër la nanu góorgóorlu ci ak taalibe nanu góorgóorlu ci bëgg sëriñ bi te bañ ko yemale dara nanu waxtali ko lu dul sëriñ bi lu dul sëriñ bi nañu ko waxtali ko ku jaaxle rek seetaan ko sa taalibe ne ko sa borom sëriñ bi maa ngi lay ziar bu baax te fi yemale kàddu yi ñu ngi bu

ak sunu jaayante ci Cheikh Ahmadul Khadim khadim rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallam ñongi ndokkel mam Ibrahim Cheikh ibrahim Fall ñongi yalwan yalla ngeureum ak leer ak yermande tay ji duma wax sunu jambar ja waye damay wax sunu jambar ya muy Cheikh serif Abdourahmane Fall Tilala Khadimul Khadim ak serigne cun Thioune jaamu serigne saliw tay ji de serigne saliw amat na ndam naka jekk moom ndam rek lay am waaye tey jii nag da cee gën a firndewu sëriñ Saal tey jii sëriñ Saaliw Mbàkke amaat na ndam ñoo ngi ñaan bu baax pas-pas bu wóor ak jom ju mat sëkk ak ngor gu dul jeex ci sunu ñaari jàmbaar yi di Sërif Abdul Aziz mii toog ak sëriñ Saaliw Cuun mii toog yéen de mujjewuleen puso bi mu réer te lu ma xam laay wax maa ngi nii bu baax sëñ Abdoulaat Touré mu sëriñ Saliou Touré génn guma sëriñ Saliou Mbàkke ba tey takat sëriñ Saliou am na rek lenn loo xamante ni lu lu lu doy kéemaan la mooy baatu ceddo ba noppi di murit saadix loolu moom sëriñ Saliou rek ko am ceddo moom murit saadix mosu cee tega ceddo ceddo ba noppi murit saadix moom mi ngi doog am waaye sëñ Sall Sërif Abdou Aziz bi muy ñëw dafa ànd ak li mu am ay doomi sëriñam la àndam muy sëriñ Saliou Fall mii uuf ci wetam ak seex Mourtada mii ak sëñ Touba Fall mii ànd ak sëriñ Khadim Fall mii Baye Fallu sëriñ saaliw génn gu ma sëñ Saliou ba tey ànd ak sëriñ Ibrahima Faye mii moom sëriñ Saliou di sa lépp ànd ak seexam yu baax yi mu mel dama naan Cheikh Maysa Gueye ak Cheikh Sidaat ak sëriñ Babacar mii ak waa këram waaye nag mënta ñàkk bañ ñëw. dani xanaa tey la waaye moom naka jekk daa war a ñëw seen ñaari waajur yi Serigne Saliou moo leen boole waxuma lu ma xamul de lu ma xam laay wax moo ko ni beccoo mu ni Mbàkke mu ni ko ndax xam nga sërif mi mu ni maa koy bëgg a xam de Mbàkke xoolal na Cheikh beccoo mag la waxuma ay at de fi mu ne muridulaahi boo nee muridulaahi ka ca bokkul danaan moom kat mooy jaam bu nam ma dem ca boroomam loolu lay wax ka ca bokkul loolu lay lay lool la koy layee waaye bi sëñ Tuubaa ñëwee la murid laay doog a am fi mu ne bi Seex Béthio ñëwee rek la cantaakoon doog a am te koo ni doo cantaakoon mu mer waaye nag moom moo fexe ba muritu ndakaaru yi amatuñu complexe caaye sax tubéy ju mag la ñuy wax mu fexe ba dimbali leen ba ñu soppi kàddu yi fexe ba dimbal leen ba nayetunu fexe ba dimbal leen ba dootunu fo loolu Cheikh Béthio ko réussir gis nga lii may wax lu ma gëm laay wax Sérif Abdoul Aziz mii ma àndal bu may dem moom laay àndalaatal dem moo ne sëriñ bii kat maay sangam waaye dama ko ne woon jaay naa càng googu jënde ko njaamu ndax sa gos daa gën a wóor sa deret ngërëmul sëñ Tuubaa ci ne te man wóoruma sama bas ndax nekk na ci mbir man doomi nijaayam laa waaye damaa jaay loolu loolu neexatuma ak jaamam rek laa bëgg a doon mun yaay sama sang ma ni ko déedéet loolu wóorutul gis nga fi ñuy joxe fi ñuy jaayee ku fay ñaan kenn du la may teen jënd ngeen ba jaral moo tax ngeen mën koo yóbbaale jaajëfi sëriñ Saliou ji faw ngeen bàyyi xel ni ñaari ndab ya ca ndox mi jóge fii di jóge fii looloo waral ndox yaa nga xamante ni moom ngeen ca war a xam moo tax sëriñ Saliou mi faw si Ahmadou Mbacké war a doon sëriñam dama bëgg baax ñu déglu ma ñaari ndox ya daan jaabante ci ci bool bii di dem ci bool bii bu dee bool lañ ko mën a tudde fépp yi ca suuf moo tax far force Cheikh Béthio sëriñ Saliou rek ku mën a wutu jataayam kenn mënu cee toog ku dul Serigne Saliou parce que boo bëggee amortir lu dul toj danga koy tegal lu nooy ngir mu mën a rebondir boo jëlee luy toj jële ko ca kaw sànni ko te wutaloo ko lu ko amortir bu dalee ci kekk gi day toj te sëriñ Béthio faw Serigne Saliou wuutu ko pour cant gi mën a mel nii xoolal lii waay waay bu fi nekkoon xanaa yaa njaay bare ngeen di xool waaye mënta weesu nii nag bu fi mën ta wessu ni ya mboose tok ni sama ya aïssa tok ni nii murid yi toog waa lan mo xew lan mo xew mënul wessu ni rang bi rang ngeen daan def xol ñii di xaar xam nga lu ñi xaar bëgg nuyo bu ñu wu dañuy japp ni perte nañu tay lolu ya ko am ci yoonu mouride nan wax deug rek loolu ya ko am ñuy taxaw di xaar nuyo loolu ciiru mag la du ciiru gone ñi fi ne nuyo rek lañ bëgg def nuyo sama wax ji daanaka dégguñu nuko pour bëgg nuyo nuyoo ciiru mag la du ciiru gone yeen ay mag ngeen donn takat seigne saliw am na ndam fi mu ne boo demee ca bàq ya barabu serigne beccu ngay gis ni, barabu serif abdourahman ni lu nit ñak ñak ñak ñak baña am tawhid bo duggé fi ñaan di nga dugg fe ñaan ndax xamoo lu tax ñu teg leen fa xamoo lu tax ñu am seen kees yooyu moo ne ñoom sant ñu Mbàkke de moo ne ñoom moomuñu Touba de waaye cëyu borom Touba lanu Serigne Béthio ak Serif Abdourahmane cëyu borom Touba lanu dafa am loo xamante ni borom kër ba du ko xamal surga ba parce que bu meree ñibbee tax du ko xamal kon ñoom ca bokk moo waral lii boo ci bokkul woon doo am lii. li doxandeem du ko am ci dëkkub jàmbur lii boo doon doxandeem ci bamba ji do am li yoonu murit ñepp dajé nañ nag yi bari murit di la xool di joy di la bëgg jox seen xaaliss yi berne yi ba légui ñoo ngi bool yi lo bëgg ah ba légui murit ya ngi ni xolal li bo defoon benen baas bo defoon benen baas all all bi ngay am te murit ya ngi ci biti batay loolu mooy sëñ Touba mag nag gone du ko donn dafa xaar ba ngeen mat ko mu doog a dem bàyyi leen fii boo ko matul woon du dem dalay lay puus nga jiitu mu toog fii bi mu la fi bàyyee moom xelam dal na xam ne da ngay yeggali liggéey bi fii ngay toog di sañse sañse bi macha allah di wax muy neex mur ji ñu lay jox seen alal ji di leen jox seen njëbbal yi loo bëgg ñu defal la barke doo jàq parce que jom dañ koy donn ngor dañ koy donn ak murit dañ koy donnu pas-pas la te teel ma ma fecc moo gën fii laa ko façon kenn du dem ñii yow la ñuy gëm yow la ñuy bëgg yow la ñuy wóolu yow la ñuy yaakaar waay waay jóg leen ñu màggal Serigne Béthio nag seen xool bi bari na jóg ñu màggal Serigne Béthio Cuun Mamba jërëjëf sëñ Béthio jërëjëf jërëjëf sëñ Béthio jërëjëf jërëjëf sëñ Béthio léegi nag dama doon tàmbalil mag ay wax rek waaye man sax du samay wax kon damaa bëgg rek sëñ ab Aziz wax ci ay baat ndax moom moom moom wax ji sëñ Ceddo li ma la wax ci déeyoo rek yow sama wóllëre nga waaye man sama soppe nga ndax itam man damaa bëgg ku génn ci kër te foo dem ñuy xemmem kër ga ndax yow man damaa bëgg loolu bëgguma complexé bëgguma ko ragal ndax yoon wi nag ragal indiwu ko fii sunu maam Serap Fall ba mu dem ci sëñ Touba bu ragaloon du egg bu ñàkkoon ngor du fa yàq bu ñàkkoon jom du am lii te ku ni sëñ Touba ni maam Serap Fall moo tax fi mu ne ba àdduna tukki ku ni Serigne Saliou tudd jaamam ba canguk Serigne Saliou ga fu mu toll jaamuk Cheikh Béthio gi toll fa kon ma wax waxi sëñ sëñ Abdou Aziz